waaw asalaamaaleykum mbokk Sénégal mbokk àdduna maa ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di ñaan yàlla defal Sénégal yëpp jàmm doon bëgg a wax rek ci li nga xam ne moo lëmba réew mi te muy programme UNESCO bi nga xam ne dayoo bëgg a jël lépp lu jël ci affaire orientation sexuelle maanaam dugal suñu biir programme scolaire ne xale bi dafa war a nangu ni nit ki moo moom sexualité boppam que nit ku nekk mën ngaa tànn bu la neexee ànd góor bu la neexee ànd jigéen bu la neexee nga soppi maanaam say cër nekkoon góor nekk jigéen wala nangu ñaari jigéen ñu ànd loolu nag man bi yoon du ma ci blâmer président Macky Sall du ma ci blâmer ministre de l'éducation nationale du ci blâmer gouvernement du ma ci blâmer kenn bi yoon man ñu ma ciy blâmer moom mooy le peuple sénégalais lu tax ma ne le peuple sénégalais laay blâmer ndax le peuple sénégalais dafa am benn jikko bu ñu am ñu ci gën a bari te jikko jooju mooy lan ñu ci mel ni ñoom président Ousmane Sonko ñu ci mel ni ñoom Guy Marius Sagna bu ñuy xeex pour intérêt Sénégal ñu bari dañuy toog seen biir kër yi jàpp ne ak ah ñoom ay politiciens lañu mel ni ñoom seen bopp la ñuy xeexal gis ngeen nag toog boobu ngeen di toog seen kër yi jàpp ne yéen seen jàpp ne yéen seen yoon newu ci yéen a ngi doog comprendre nag ne seen yoon mu ngi ci ndax dëkk politiciens ñoo koy doxal kon man bu fekkee damaa am sama yëf nga koy doxal danaa xool na nga ko yoree danaa ko càmbar boo ci defee nekk sunu noonu. bu waree mu waree génn jàmbaarloo ak yow danaa génn jàmbaarloo ak yow parce que du nangu kenn ku jàpp sama yëf di ko foowe wala di ko jëriñoo mais dangeen ngeen di toog seen kër yi jàpp seen jàmbur jàpp ne yoon seen yoon nekku ci waaw tey nag yéen a ngi doog comprendre ne mbir mi seen yoon ngi ci ndax lii nii bu duggee ci suñu suñu biir école yi xam ngeen ne day laal directement seen jaboot laal directement seen i doom moo tax yéen ñëpp fu mu ne nii ngeen tiit jaaxle mais ba ngeen waree tiit war a jaaxle du tey yàgg na am na fi yu jàll Sénégal yoo xam ne ay organe de contrôle yu officiel yu état waxuma ne Ousmane Sonko ko waxal keneen ko wax de déedéet ay organes yu officiel yu état lu jëm ci wàllu OFNAC ay cour des comptes génnee nañ fi ay dossiers ne leen diw ak diw ak diw sàcc nañu lu ay milliards yu milliards ci aloolu Sénégal ngeen toog seen kër jàpp ne seen yoon nekku ci bàyyi ñoom Guy Marius Sagna activistes yi ñoo lànk ay aar nañu bokk ngeen bàyyi leen ñoom ñoo génn di xeex yéen ñëpp ngeen toog seen biir kër yi jàpp na yéen seen yoon newu ci léegi nag yéen a ngi doog comprendre que seen yoon a ngi ci ndax dëkk ña fa dëkk ñoo koy defar kenn du jóge ci àll bi ñëw du ñuy defaral suñu Sénégal gis ngeen ba président Obama ñëwee au pouvoir africain yi bari dañoo kontaan jàpp ne comme noir egsi na États-Unis kooku kon tey dina ñëw defar Sénégal wala defar Afrique jàppale africain yi kenn du jàppale africain yi amul kenn kuy jógee ci àll bi di ñëw defar Afrique xalaatuñ ko sax Obama bu ñëwee Sénégal xam nga lu mu doon lijjanti nan la ñuy légaliser mbirum góor jigéen moom yooyu loolu lijjanti Sénégal kon ngeen xam ne Obama ci boppam dafa nekkoon ci ay loxo moomul woon boppam kon africain yi sénégalais yi yeewu leen lillaahi wa rasuuli di xam ne Sénégal du golo moo koy defar. du gaynde moo koy defar du rap moo koy defar du américain du indo moo koy defar yéen sénégalais yi ñun sénégalais yi ñooy defar senegal bu baaxee ñun la bu bonee ñun la ndax UNESCO bu ñu demee ba am fit am fit naan dañuy dugal lii ci suñu biir éducation c'est parce que dañoo gis dëkk bi nu muy doxee gis ne sénégalais yi dara moo leen méttiwul sàccal seen alal sàccal seen pétrole sàccal seen gaz defal lu la neex ñoom daal dara moo leen dérangé wul fii léegi ñu am lu tuuti lu ñu lekk ak lu ñu naan defal la neex dëkk bu mel noonu mënta baax dëkk bu mel noonu mënta développé dëkk bu mel noonu mënta tegu ci ay raay yu baax nit ku baax sax bu ñëwee day mujjee bon ndax day gis ne yéen ñooñu nga xam yéen a ko waroon contrôler xool la muy def di ko surveiller yéen lijjantiwu leen ko bu yàggee sax moom day mujjee bon parce que day jàpp ne man kenn surveiller wu ma kon mën naa def lu ma neex sénégalais jël leen seen responsabilité ndax ñoom bu ñëwee ba suñu biir dëkk am na lu fi jotee xew am na lu fi jotoon xew leen parce que Notre-Dame institut Notre-Dame bu ñu ñëwee ba biir Sénégal bëgg imposé imposer naan ku takku voile doo jàngee seen école mais loolu gravité boobu man c'est-à-dire ñoom bu ñu demee sax ba mën a xalaat loolu biir Sénégal mooy y a un problème y a un problème man am na loo xam ne mën naa ko nangu bu fekkee seen biir dëkk lañ ne ñoom seen dëkk bu leen ne képp kuy jàngee suñu école doo voilé wu am seen dëkk la aw ma benn problème ci loolu ñun lu mu yor dafa leer boo demee ci dëkku jàmbur da nga respecté seen i loi seen i loi bu ñu la teree pratique sa diine na nga génn nga dem sa yoon bul xuloo bul xeex loolu seen dëkk la mais ñun suñu biir dëkk ñoom ñëw bëgg ñu ko imposer Sénégalais yéen ñëpp ngeen toog seen kër ñi fa demoon di manifester mën nañ leen compter en ah, bari wuñu yéen ngeen toog seen kër jàpp ne loolu yéen seen yoon nekku ci tey nag yéen a ngi doo comprendre ne seen yoon mu ngi ci un peuple day digne un peuple day am fulla ak fayda am lu muy bañ bu bëggee dëkkam baax day am fulla am fayda am lu muy bañ kon nag lii nga xam ne moo nekk di xew c'est l'occasion que sénégalais yi quel que soit seen bord politique quel soit diine bi ngeen bokk ndax ñun affaire yi nii du question sax diine suñu tradition moo ko njëkkul nangu kon fépp fu ngeen bokk c'est l'occasion ngeen wone ne yéen vous êtes un peuple debout un peuple digne te am na yoo xam ne malgré la pauvreté du ngeen ko accepter mais je risque d'être déçu encore une fois ku nekk këram lay topp jàpp njàmburam yaakaar ne diw moo koy régler diw dina ci wax diw dina ci wax yow lan moo ci sa responsabilité yow lan nga ciy def yow nous sommes tous autant que nous sommes nous sommes man loolu rek laa amul lu may wax ci vidéo bi moo tax ma ne vidéo bi du ma ci blâmer benn politicien ndax nguuru Macky Sall bi ñoom ñaaw ñaawtee fi ñu bëgg dugal Sénégal yépp ci nguuru Macky Sall bi dañ koy jéem a dugal ñu ngi gaawatu nag ndax moom dafa nekk koo xam ne lépp lu tubaab bi bëgg daf ko daf nangu moom amul lu muy bañal tubaab bi lépp lu tubaab bi bëgg da ko nangu te sénégal yi nga xam ne ñoo ko votel je le encore une fois Sénégalais yi nga xam ne ñoo ko votel yéen ñëpp am ngeen ci part de responsabilité décision bu mu jël am ngeen ci part de responsabilité lépp lu mu nangu am ngeen ci part de responsabilité ndax mënu leen wax ne xamuñu woon ndax ki nga xam ne bala ngay nekk président fa nga loué woon di fa fay Sénégal yëpp xam nañ ko nga dugg ci nguur nekk milliardaire milliards yooyu loo ko ci nguur nga ko jëlee kon nit kooku boo ko jëlee nga fal ko jàpp ne moom mu mën moom mu baax jàpp ne lépp lu mu def rek yow am nga ci am nga ci part de responsabilité. nee woon naa leen ne vote vote dafa benn aspect religieux. ndax booy sànni nit ki sa carte dafa am ay conditions yoo xam ne da nga ko war a xoolaat ndax nit ki dëggu na ndax nit ki jub na ndax nit ki am na imaan am na tawxiid ndax am na lu mu wane loo xam ne mën nañ cee jafandu jàpp ne kii kat buñ ko falee dana dana doxal ndax ci jaar-jaaram wan nañu loo xam ne wax dëgg yàlla mën nañ am yaakaar ci moom mais nit koo xam ne bala muy nekk sax au pouvoir nekk na milliardaire te milliards yooyu liggéeyu ko liggéeyu ko ci nguur gi la ko jëlee kon kooku déjà wan na la boppam wan na la nan la mel mais malgré tout nga jël ko tabaat ko am yeneen sénégalais yoo xam ne jox nañ leen xaalis ñu jënd lañ ay casquette ay t-shirt ngeen jël ko voteel ko lépp lu mu def lépp lu mu def moo xam lu baax la moo xam lu bon la am ngeen ci part de responsabilité kon lii nekk di xew ni Sénégal ñi voté président Macky Sall yëpp am nañ ci part de responsabilité bu ngeen ko xamee bu ngeen ko xamul te man gëm naa ne yàlla na leen ko laaj waaw bu ko defee rek moo ma jaajëfal ñëpp ziar ñëpp di leen wax ba beneen yoon incha jërëjëf